maa ngi tudd Abdou Samad Sène école privée Cheikh Ahmadou Bamba voilà je suis euh, l'actuel président de cet établissement quoi voilà ba grève yi nag nuñ ko gisee doy na waar lool parce que instant bi nii suñu ay euh, camarades yi nekk ci école publique yeeg yooyu noonu ñëw nañ fi génne ñu te lii moom vraiment c'est un peu grotesque quoi parce que amul différence amul si entre école publique ak école privée examen yi ñoo koy defandoo devoir yi ñoo koy defandoo composition yi lépp ñun ñoo koy defandoo quoi kon ñoom buñ jàngul ñun day impacté ñun en quelque sorte sax suñ suñ suñ jàng quoi te loolu dafa xaw a doy waar te tamit bëgg nañ état du Sénégal xoolaat lii nii parce que instant bi ñun tamit nous sommes a danger quoi suñ ay avenir moo nekk si en danger parce que boo xoolee ni ñoom seen ay doom ak yooyu noonu ñoo ngi à l'étranger ñun ñu toog fii nii ça va pas lui causer des problème quoi buñ see yoon tamit ñu dimbali ñu def la tout pour prof li nga xamante ni si nii bëgg nañ ko ñun defal ñu ko ñun ñu mën a delluwaat ci classe yi voilà instant bi daal vraiment affaire yi daal doy na waar loolu te ñun tamit bëgg nañ jàng quoi parce que géej nañ ci classe yi voilà merci en fait euh, je me désigne sous le nom de Abdou Samad Sène élève de la classe de terminale S je suis l'actuel président de cet établissement voilà comme euh, comme la manière dont on a vu euh, les grèves et genre les élèves de de de, de, de des écoles de publiques Ah, ils sont venus ici pour nous faire sortir. Là, c'est un peu bizarre parce que euh, d'ici euh, deux semaines, pendant des semaines, on n'a pas à faire cours et nous faisons ensemble les mêmes devoirs, les mêmes compositions. En quelque sorte, c'est un peu bizarre quoi. Et nous, nous, nous interpellons l'État du Sénégal pour qu'il fasse de, tout, de telle sorte que nous reprennent, que les cours se euh, de, la manière dont nous le souhaitons quoi. Vraiment, et merci beaucoup. Je vous... sama benn xarit jigéen